C'est ce qui fi dajale woon dafay cérémonie subvention bo xamante conseil municipal bu Hann bel bi nga xamné man ko en tant que maire euh, dañ ko non def at bu jot conseil bi da fam subvention bu mi def war ko le ci comité de santé comité de développement sanitaire donc ci structure de santé yi alors li am solo ci subvention yoy ñuy def fay permettre population yi seen bop ku dem ci structure de santé ñu faj la bindal la ordonnance ñu mën la jox garab nga mën a jënd garab bi ci jëg bu njëg bu yomb loolu mooy intérêt wu subvention bi ñuy def loolu nag dafa bokk ci priorité wu conseil municipal parce que at bu jot dañ koy def du loo xamante ne duñ ne la du loo xamante ne lu bees la mais dañuy faratal en tout cas di accompagner les structures de santé parce que loolu dafa bokk ci liggéey bi nga xam ne moom nañu dénk municipalité liñ ñu dénk mooy dañoo bëgg population yi bu nit jugee ti commune Hann nga jugee Maris wala nga jugee Yaraax ne ma ngi génn commune pour uti ko fenen ñun suñu ambition moy lepp lo soxla ci walu santé ci lañu denk nga mën ko am fi bu né euh ci poste de santé la lo soxla nga am ko fa bu féké né ci centre de santé la lo soxla nga am ko fi tay bo démé xol suñu ñaari structure de santé yi bo démé bi melni Maris am tay bloc opératoire centre de santé bi nga xamné mi ngi nek am la nga xamné moy radio numérique donc amul appareil radio mun naa bu ko gëna kawé kawe waxuma scanner waxuma IRM mais ci walu radio numérique en tout cas lépp lo xamantane centre privé ñi ngi koy def tay ñun mën ko am sur place té lool dafa bokk ci suñu mission ci walu fièvre aussi bëgg nañu en tout cas képp koo xamante ne dem nga am nañu ay vacataires yoo xamante ne ñi ngi fi ay spécialistes muy cardiologie di leneen ak leneen ak leneen loo xamante ne dañ lay toppatoo di la assister donc yenn cas yi nga xam ne dafa dépassé centre de santé am nañu ambulance yoo xamante ne moo leen di permettre pour que ñoom ñu mën leen acheminer ci centre supérieur yi nga xam ne loolu nañ leen dénk mais li nga xam ne moom en tout cas nañu mën a wax fii ci Hann bel mooy ci wàllu santé la nga xam ne moom la population di xaar ci poste de santé wala centre de santé mun naa ne tey ñun atteindre nañu suñu objectif ci fànn boobu. mën nañu xam nga euh, budget bi nga xamante ne moom ngeen dégagé ci mbirum santé. budget bi nga xamante ne moom ngeen dégagé yéen mairie bi. alors tey li ñu fi dajale 13 millions la garab rek yoo xamante ne moom la ñu jël jox ko en tout cas au centre de santé pour que ñu mën a liggéey bu leen fàtte ne que. Euh, mutuelle de santé dafay programme ambitieux programme bu baax mais programme boo xamante ne aussi dafa 10 parce que diis pour état de Sénégal mais diis surtout aussi pour structure de santé yi nga xam ne ñun yu ndaw yi la. parce que bu ñu nee structure de santé da ngay gis da ngay yóbbu ñu war la fay léeg-léeg paiement yi di nga 4 mois alors avez boo délai sa stogu garab lu mat 4 mois ngay joxe mais ba léegi jotugoo chèque bi lay permettre nga mën donc ñun foofu nañuy intervenir pour assister encore une fois population yi beneen bi nga xam ne ren ci subvention fi innovation bu bees la.

nga dem ci pharmacie ba ñu jël garab yi jox la ko te doo fay 1 franc donc loolu je pense que dafay innovation boo xamantane comme ni ma koy waxee politique bu conseil municipal la parce que ñun li ñuy faral di wax ñun maire yi dañuy wax ñu naan ñun mais ñun en fait